questionner Euh, est-ce que mën nga bokk groupe parlementaire non non non s'il vous ma ma terme du ma du ma génn yeewi di nga génn yeewi du génn yeewi parce que yow xam nga lan la nekk du ma génn yeewi yow xam nga lan la nekk fa laay taxaw yow élément yeewi bu fi ñëw lenn rek ngay def du ma génn yeewi dis ce que tu veux non non est-ce que mën nga nekk dans un groupe parlementaire ngeen dem ngeen di dem di di di di voter ay projet de loi waaw lu ñu ay ay texte de loi mu ñu ñu tëral dara yow nga bëgg a désolidariser wu après nga bëgg nag ñoom ah, ah, duñ ci tirer ay conséquences politiques du loolu de may député yowoon ak léegi bokkul xam nga commencement bi lan lañ doon def commencement bi dama naa wax waa toog leen ñu xaar leader yi toog leen ñu xaar leader yi ñu wax ñu quoi faire am benn soxna jour boobu laa ko jàpp ba tey muy Awa Diène député pur dëkk Médina ñuy réunion mu ne man de dama am yaa a une remarque qui est faite par tout le monde mais man dama koy wax ñun ay député lañ nekk ay kilifa suñuy gox ñu fi indi yónni ñu mais à chaque fois rek dañ naan waa toog leen ñu woo leader yi laaj leen lan lañ war a def déggoo ma de te xeetu député boobu ñun dañ ko yàgg a xeex mooy lan ana ñu ne waaw ngeen ne nii président groupe parlementaire bi su ne nii ngeen nii bu ne nii ngeen nii non dañuy daje. toog réunion ñin wax groupe parlementaire yooyu askan bi lu muy def nii assemblée nii amul benn législature ah man ci li ma fàttaliku boobu ma nekkee presse ak léegi nii du opposition du pouvoir boo xam ne débat de yu metti yu tar yenn saa yi nga gis ñaari Pastef mbëkkante ba nga ne ñii est-ce que ñoom ñaar ñoo bokk parti yenn saa yi man mi nga xam ne moom damay xabaabal moom maag Abbas Fall ñu ne ci ba gaa yi dox suñu diggante. parce que moom laa ca gën a yeb déggoo ma de nii wax bañ ne nii ñu ne daal mais nag bu dee nag. saf ko yow nu saf ko yow sa sensibilité ngay demee. déedéet man. Ah. man ngeen même conférence de presse bu ñu ñëwee ñu ne la partie olof Ahmed moom moo koy def la partie euh, en français. waaw déglu ma expliqué li nga d'accord ngay ànd li nga d'accordul doo ci ànd. déedéet non non non non mais da ngay wax nga argumenté nga convaincre ma. ñun ñëpp ñu ne sawaay neexul ba neexul mais pour l'armée il faut voter par contre pour le ministère tel ak tel ak tel mais pour l'armée moom xoolal wuy ma wuy ma vote sans débat ñu ne ah bon ñu ne waaw man bii passé sax man man man maa doon sëqatal naan non balaa ñoo dem si vote sans débat bi man dafa am lu ma bëgg wax ci gendarmerie mais coow li bari bari ñu ne non dañ ne woon sans débat ñu ne nii nii waaye yow ne non non non bàyyi leen Ahmed wax coow coow coow ma ne. d'accord en commission mais dañ ne woon vote sans débat armée comme ni ñu ko defee daaw parce que armée moom armée moom daal politique bi daal nañ ko ci génne yeneen nii nag ñu def débat waxtaan lii ak lii mais l'armée ku xam armée xam ne daal armée daal du foofukaay armée daal mooy armée mais par contre ren ñun dañoo d'accord woon ci gendarmerie nationale moom dëgg la armée mais ñii il faut ñu wax ak ñoom